بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi di sant sunu borom subhanahu wa taala ñu ngi koy bàkk di ko kañ moom sunu borom di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waamam xéwal ci kaw yonente ba dee saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu ci waat nañ ci doon kebbaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooñu nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf leen a tànnoon li soxbati nabiyi ngir ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàppale ci ab diir bu gàtt mboolem li yàlla yónni woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ko mu jottali ko jottali na ko waaye ci diir bu gàtt saxaaba yi fexe nañ ba wasaare ko fi mashariqi al ardi wa magharibiha ba amul fenn fooy dem tey ci àddina bi lu dul xam nañ lislaam mbaa ñu dégg ko ci diir bu gàtt boobu saxaaba yi wasaare ko mbokk yi xam leen ne dañoo muñoon seeni soxna muñ seeni doom muñ seeni njaboot muñ seeni dëkkuwaay waaye di badl al jahd wal juhud ah fi xusuli mardaati rabbi subhanahu wa taala ngir am ngërëmal suñu borom jaraloon na leen luñ amoon lépp ñu joxe ko moo tax borom bi subhanahu wa taala gërëm leen ngërmande joo xam ni kenn jiituwu leen ci ci kaw suuf waaye ngërëm loolee keneen du amaat lu ñu toll ci kaw suuf ginnaaw buñ fa jógee ñoom ñooñu woon ak kenn min al udama ñu màgg yi nga xam ni quwaadul xarum généralu guerre yi nga xam ni saa boo tuddee aw tuuram rek daf lay fàtte lu bare bare bari lu fàttali lu bari ci daaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li waral loolu mooy xam ngeen ni tàmbali daaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam pour mu jàll faaw ay jaasi jóg ginnaaw boo xam ni woote ci keral jot na muy yonente sa sallam di jottali te anam boo gën a jaaree ci bilxikma wal mawisat alxasana waaye li ñu tuddee xare moom doo ko tudd mukk ak loo gàtt gàtt àll wala lu sa xel dafay dem ci Xaalid ibn al-Walid al-qaa'id al-azim Xaalid ibn al-Walid kon tey mu nekk ñaareelu bind ci dundu Xaalid ibn al-Walid bu ngeen fàttalikoo ci sunu bind bi weesu am na ak lépp suñu jot a am ci dundu Xaalid lu ki mel ni xam mooy kan ak nan la duggee ci lislaam ak jaral yi nga xamante ni defoon na ko ca Mu'ta ak taxawaay bu rëy ba nga xam defoon na ko ca Fathu Makka lu mel nii faagaagal Uzza ak la ko wër waaye tey nag dañuy wéy ak yéen ci dundu Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu waaye mawqifuhu al-Xaalid fi hurub ar-Ridda taxawaay bu am solo ba nga xam ni kenn du ko fàtte bi Xaalid ibn al-Walid defoon ci biir hurub ar-Ridda bu ridda mooy xeex ak ñi nga xam dañoo tudd woon génn ci lislaam te xam ngeen ni mbokk yi xew-xew bi gën a rëy ginnaaw bu yonent bi faatoo sallallahu alayhi wasallam bu xew ci gannaaw mooy bii bu yonent bi faatoo dundam moom xew-xew yi ci xew ci rëy bari na lool waaye bu yonent bi génnee àddina sallallahu alayhi wa sallam yëgal ni xew-xew bi gën a rëy ci jullit ñi ak ñu dul jullit ñi mooy xarubu ridda yonent bi alayhi salaam bi mu ngi jógee dafa am ci ay dëkk dëkkaat yi war Madina ak ñenn ci biir Madina ak lu ko sori ñoo xam ne dañuy borom bi subhaanahu wa taala yonent bi la yabaloon pour mu ñuy daawa di ñu waar di jël ñun azaka maadaama yonent bi faatu na mbir mi jeex na ñun génn nañ ci lislaam dañuy dem te lañ nekkoon am na ñoo xam ne ñoom dañ ni asaka sax ñu joxee ci fa ndax yàlla dañu xud min amwalihim sadaqatan tusahiruhum wa tuzakkihim biha yow yonent bi jëlal ci seen alal yi li ñu tuddee asaka ngir mu mën leen a laabal ah ngir setal leen ñu ne comme yonent bi la suñu borom wax jëlal te yonent bi néew tuddi kon duñ joxe asaka ci la abubakar siddiq radiallahu anhu dogoo dogoom ga ñi day xeex ak ñoom Omar ibn Khattab ni ko déedéet du ci dal lu tax du ci dal mooy bëri ci démb la yonent bi faatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi am soldaar suñu taxawaloon ci njiital Usaama ibn Zaydin pour ñu war a dem ca Rome fa ñu rayewoon baayam di Zayd ibn Haarisa ak yeneen occupation yoo xam ne jullit ñaa ngi fi te it nag ñi murtad danoo baree baree bari ba loolu di xeexee Abu Bakr Siddiq ca la waxoon Omar ibn Khattab ni ko axawaarun anta fi ljahiliya jabbaanun fi lislam yow ndekete da ngaa nekkoon jàmbaar yi parce que sëdd ba ngay nekk ab ceeb ba nekkum yambar tey nga naa ma mënoo xeex ak ñoom léegi bu ñuy xeex tey doole mooy tax ñuy xeex xam ngeen ne Abu Bakr Siddiq ku tuuti woon la ci jëmm ku teewoon la tuuti lool nga xam ne daanaka boo ko xoolee da nga yaakaar ne boo ko mënutee mu daanu waaye la xasanul basri yi doon wax rek doole ku gëm yàlla mu ni fii lay ne ak yoon yoo xam ne ca yaram wa fekam dina amul yoon jox waaye doole yéefar dëgg ci biti lay ne yoon jox gën a ca xol ma afdal ummati baada nabiyiha siddiqu hadihi al umma aw bakirin siddiq aw bakir ni wallahi bu xet yi nankoon tànki toog na yonent bi daw ak moom génn madina du tax ma fomm saa yoon yi xam ngeen ni ko dogoongo nee na bu doon ak weñ gi ñuy dugal ci masak gileem bakkanu gileem di ko ko womatee su doon loolu lañ daan yëpp yonente bi ñu lànk ni dootuñ ko ëndeeti dinaa xeex ak ñoom bañ commencé di ko ëndi kon kooku dogu na ca la Omar ibn Khattab xool day joor ak càmmoñ xam ni kii kenn mënatu koo dëpp mu daal di ànd ak moom ca loola aw ba seen sa biir ak dogu gu ma tëkk gët mu ni wallahi bu ñëpp bàyyi woon bu ma ñëpp bàyyi woon ni ma duñ la jàppale du ma tax a koom sama yoon dinaa dem xeex ak ñoom léeg-léeg dinañ faral jox mbokk yi ma ni mer ak dogo ñëpp mer dogu ñëpp mën naa def loolu loolu mer dogu ñëpp boo seetloo mën naa def loolu lu ne nit bu dogoo rek li ëpp lu nit ñi naan mënu ko mënu ko dana ko def maa ngi fàttali ko bi ñuy jàng suñu benn cheikh daanañu wax ni yàlla yàlla sàmm ko daanañu wax ne gis nga booy song ci lu baax da ngay song lu ñëpp ni du yegg mu ne booy song ci lu baax fekk ma koy tàggu naan ko dama bëgg dama bëgg tijji daara mu ne ma booy song da ngay song loo xam ne ñëpp dañ naan du sot su ko defee jëmmi nit ñi ñàkk gi ñu wax ñu wax du sotti sa dogu ak sa jom mooy tax ba ngay jéem mu sotti kenn sa laayam na nga dogo mu ni ca la la sant suñu borom di dimbali waaye waxam jooju wax la ju ñu jëriñoo wax la ju ñu ju am solo te it lu wér la nag dem nañ ba ay jamono ñu doog a xam ne wax ñu nekk te lu wér la Xaalid ibn Walid li kéemtaane moom ci jaloore yi mu def ci xorobu ridda mooy ñun diir bi mu tuub ak yent bi paatu dafa gàtt lool ndax li gën a wér mooy ñetti at moom ëpp na ko waaye ndax àgg na ñeent wala diggante ñett ak ñeent fa la def comme Abu Hurayra foofu la coow li nekk ànd ak loolu lay joor côté penk côté sow fu nekk daanaka xaalis dem na fa borom xam-xam ne dañuy wax ni fukki xeex ak benn xaalis jot na koo teewee ci yoo xamante ni am na ci ñett yoo xam ni ci ron keppaaru yonente bi la doon xeexee maanaam yonente bi fekkee na ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah kon am na ci ñett yoo xam ni yonente ba nekkoon njiit xaalis bokk ca waaye am na ci ñett yoo xam ni xaalis da caa bokk mu nekk généralu guerre bi waaye am na ca juróom yoo xam ne jot na caa bokk donte na xeex ba sax demeewut noona kon Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu fukki dajeeg benn ngoog yu siiw yoo xam ni li mu yéex yéex tuub def na ci dalal yoo xamante ni taarix du ko ko fàtteel mukk ànd ak Xaalid dafa nekkoon ku yonent bi wóolu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bariwaa na koo xamante ni cooro dañ ko fay yaakaar ak tiitaange yonent bi Xaalid dafa yabal bal sax nag loola taxoon mu seedeel ko seede gu rëy ga nicma abdullahi wa aqul ashrati wa sayfun min suyufi illahi sallahu allahu ala alkuffari walmunafiqin ah waay waay jaamu yàlla bii ku baax la waay ah mbokk yi dajale fukk de kese gën mooy diw fekk xaalis la doon joxoñ mu ni kii de jaasi la ci suñu borom bocci mu ndoddee ko ci kaw yéefar yi ak ñi nga xamante ni ñooy naafeq yi loolu yonent bi moo ko doon seedeel Xaalid ibn Walid Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu keroog nag li mu dogoo ci dem xurubu ridda muy xeex ak dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo murtaloon génn ci lislaam mi ngi jëloon drapeau bi jox ko Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu ànd bu wóolu ko lool ginnaaw bu wóoloo suñu borom waaye daf koo gunge ba mu génn dëkk bi daf koo gunge te xam ngeen ni Abu Bakr bu daan mës a gunge généralu guerre général day war ca kaw Abu Bakr di ko ombatal fasam te xam ngeen loolu loolu mar xam bu réyee bal sax nag ñu bari ci saxaaba yi dañ daan bañ loolu man ma war Abu Bakr wàcc bari na ci saxaaba yi ñoo xam ne jot nañ ci am na ci koo xam ne moom dañuy déedéet moom kay moom dañuy ànd ndox mbaa ñu ànd yéeg Abu Bakr jiital ko ci yàlla ni ko bi nga war dinaa dox te bu ko giñee dana ko def kon Abu Bakr daal di wommatal Xaalid aw fasam ngir mu génn Xaalid xool ba mu yàgg mu ngi tax bopp bi mu ni ah man Xaalid de xaw ma ban gis nag laa nar a dem xare bi daw xam nga loolu waxin la léegi nit dana laaj ay laaj boppam man ndax dinaa def nangam Xaalid mu ni man ndax ñene na maa dem xare daw ak kañ lay doon est ce que sama fit ñi man Xaalid man sama jom may na ma may daw mbaa du fit ba ma nar a daw te la ma yàlla nar a may shahada far ma daw du ma ko am mu ni kon du ma daw mukk allahu akbar mu ni su ma naroon a daw sama xel day xalaat ni est ce que bisub tey laa naroon a am shahada kon su ma dawee ñàkk naa ko mu ni su ma naroon daw sama xel daa est ce karaama muy teraanga ji ma yàlla nar a defal ci xare ba kenn du ko fàtte tey la ma ko yàlla nar a defal comme du ma daw mu ni ñaari yëf yi moo tax saa su ma ko xalaatee rek même bu ma naroon a daw xam nga xam ngeen du daw waaye loolu waxee na ndax nit léeg-léeg day laaj boppam laaji jàggi man est ce que ñu mel ne ma def nangam man ngay faral loolu nit ñee koy xalaat loolu xalaatuma ko fekk yaa ngi wax ak sa bopp li koy waxtu xurum rida mbokk yi xale la bu metti boo xam ni sanatun kaamila atum lëmm fukki weer ak ñaar julli ñi di xeex ak gars yi te mbir mi jeexagul xam nga loolu loolu dafa bëri lool fukki weer ak ñaar moo tax li ci dee ci ay nit yëpp xamagul tool fukki weer ak ñaar muy atam lëmm jullit ñi di xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy gaa yi saay saay yooyu ñi nga xam ne dañoo génnoon ci lislaam Xaalid ibn Walid def na ci ay jaloore yoo xamante ni mënee su koo tënk daanaka ci benn dara ndax sorobu rinda ci boppam rek waxtaanee ko dafay jël dara moo tax lii ma ciy indi ak coppati la rek koo xamante ni ka xatratin min baxra mi ngi mel ne soq bu génne ci biir géej ngir nit ki xam ni Xaalid ibn Walid kat moom def na ci jaloore wa illa boo demee ci ahlu siyer wax nañ ci ay wax yu bare bare bare di wane ne xurubu rinda kat xeex la bu metti woon lool Xaalid ibn Walid la jëlee ak benn waaye bu ñuy wax Xulayxa al Asadi Xulayxa Xulayxa nga xam ni subhaana rabbina al aala Xulayxa borom xam-xam yi dañuy wax ni moom kenn rek moom kenn rek bu ma saana taxaw ñi ne na ni yéen yéefar yi génn leen téeméer nit ngir ñëw sax taxoon xam nga loolu daanaka xaw tuuti kon yow mi koy wax sax dëgg la ndax loolu mën naa dee benn nit boo xam ne ñeme naa jàkkaarloo téeméeri nit ñi leen saa leen sot soxoon loolu nag ahlu siyar dañ koy faral jox ci ay nit am na ñoo xam ne noonu lañ meloon Xulayxa al Asadi ca la bokkoon Xaalid ibn Walid dajeeg Xulayxa ci barab bu ñuy wax bu saaxa nee na bi ñu dajee ñoom ñaar xeex bi métti lool Xaalid di mel ni saway suy supp jalañ ci seen kaw ku lay xamee na bi ma xoolee xool xam ni lii ma gis jëmul kër ma jël sama jabar togg ca fas wa rek sam ko xel daw moom bonkal mi laa def bonkal mii nga xam ne nee nañ da doon alxaafis ibn kathir mi ngi nekk li ci bidaaya wa nihaaya mu ni jullit ñi dañoo amoon habitude saa bu ñuy dem xare pour war na su lay xam mooy kan bu ñu demee xare léeg-léeg bu ñu bëggee am ay information ci seen adversaire dañuy fexe jàpp ca kenn pour laaj ko mi ngi mel ni ku dëkkoon bëgg seet si waa dëkk bi nga fexe ba am ko xam dëkk bi nga jàpp ko yóbbu bu ko defee boo ko mit mittalee yenn information yi dala koy jox léegi nan la ñuy jàppee kenn mooy problème bi te ñun te nekk ay te nekk ay mbooloo nekk ay soldat yéen ñi bi ñu diisoo ñu ne kan moo ñuy jàppal kenn ku lay xam ñeme naa yebal leen ma dem xoolal mbooloo moo xam ni mat nañ téeméeri junni téeméeri junni soldat mu ñëw xuus ci seen biir ak jaaseen ngir bëgg tax yanu kenn yóbbu xam nga dafa am yoo xam ne yow boo koy dégg sax dëgg laa lii daal jàppal ni yàlla daal moo na ma dimbali ku ko soob rek mu jeex téeméeri junni nit mu ñëw jóg ci seen biir ak jaaseen pour war a yanu kenn yóbbu Sulayxa bi mu yegsee mi ngi yor jaaseem di dóor di dóor di xuus di dóor di xuus di mbooloo ma ngi yore jaasi comme moom muy dóor di xuus ba am benn espace gis benn waaye rek mu tungam ko rek yóbbu li mu ko tungamee yóbbu mu yegg jigéen di ko laaj mu ne léegi ba da ngeen ma laaj da ngeen bàyyi ma laaj leen ba noppi ki ngeen yebal ndax nit la wala jinne la loolu laay laaj maanaam jullit ñi yenn nañ suba ba ngoon jot di ko laaj nag wala tontu ndax moom problème am mooy ndax ki ki ngeen yebaloon mu ñëw yenu ma ndax nit la wala jinne la mooy yay laaj jullit ñi sonn nañoo sonn ku enquête kat bu ne ci jullit ñi ñëw na di ko laaj ku laaj rek mu ni tontu leen ma sama laaj ba noppi ñu ni ko bàyyi loolu loolu mu gën a jullit ñi dañ koo tontu woo waa ji ni ko mi ngi nii ku lay xatal asad yi la tudd waaye loolu xam nga kañ la mooy li ku lay xat tu tubbee ba tuubaan xam nga ku lay xat maadallah dafa bokkoon ci ñi mu tadoon la fat moo tax Amar ibn Xattaab nga xam ni karwaas yu safee la yoroon gis nga lu mu tu tubbee ba mbir mee xew ba mu tuubaan Amar dañu kenn dootu ko farati benn kos waaye nag li wala fi naan loo contre contre lépp da nga ko nangul gudd nopp gaa gàtt génn gaa mën a dal loolu moom lépp moom loo ko contre contre gudd nay nopp da nga naan waaw gàtt nag génn nga ni waaw mën naa daw nga loolu mënoo ko may Amar ibn Xattaab ni comme généralu guerre la képp ku jiitee dinañ koy def conseil teg ko sa peg waaye bu ko kenn faral ci benn fas te loolu bokk na ci ñi yeere julli gis nga mbokk yu Amar ibn Xattaab ni mu doon siyaasa ni mu doon jiitee subhanallah alazim maanaam yow boo ko xoolee da ngay xam ni àddina bi ci boppam ak moment bu ñu mën a toll ku mel ni Omar lañ soxla woon ba ni mu faatoo kenn du ko fal benn fas ànd ak nag borom xam-xam ñu ni bi mu faatoo wax dëgg yàlla faatoo waat na ci lislaam bu fet na bu ko defee ku lay xaboo bokk na ci ñu mu ta doon mu daal di war aw fasam togg ci soxnaam ni man général maa ngi dem képp koo xamante ni bëgg nga jàmm ci sa bopp nag yow nga topp sama gannaaw ndax xaalis ñii buñ ko amul tey jii bu ñu moytuwul tey jii mu faagaagal su lay xadaw bi mu dawee xaalis espagne yi ci def faagaagal leen rey leen ba nga xamante ni gañe nañ leen waaye nag avant mu leen di gañe nekk Quraysh ak ñi mu àndaloon dañ doon jàpp jullit ñi di leen rey rey gu métti goo xam ni rey goo xam ni da ngay dagg loxo yi dagg baat yi morta mortale ko Xaalid bi mu leen gañee ba noppi ñi ci des na dañuy tuub dugg ci lislaam Xaalid mu ne pour ma accepté leen ko faw ñu fayu ba noppi yéen waa dëkk bi da ngeen may génneel ñi doon def jëf ju ñaaw joojee ba noppi ma doon leen baal gaa yi di génne benn par benn diw ca la diw ca la diw ca la ba nekk mbooloo moo xam ni kenn xamul xam ngeen mu leen Xaalid def am mbooloo la ko ne diw jëlal yow dama ëmbal leen ci biir teen la teen bu yàqu mu ni sànni leen foofu ñu dee foofu ci biir am na ñeneen ñoo xam ne xaalis la ñuy jël leen su ngeen demee ngeen yóbbu leen ba ci montagne bi tiim leen xeer moom daal kenn ku ca nekk rey na la rey wu toll ni war nga doon def ci nit ñi kon yooyu ay xeeti bu tuulaat la muy ay njàmbaarte yoo xam ni taarix du ko fàttee mukk ki nga xamante ni moom mooy Xaalid ibn Walid amma mawqifuhu maa Musaylimata ibn al-Kazzab Musaylimatul Kazzab xam ngeen ni mbokk yi Musaylima ibn al-Kazzab ci saay-saay yu bon yi feeñoon ci jamono yonent bi la bokk xam nga ni waa dañoo jàpp ni Musaylima ci jamono yonent bi ci après yonent bi Musaylima mës naa bind ab leetar yonent bi ni leetar bii min Musaylimata rasulillah ila Muhammadin rasulillah arsalaka Allah wa arsalni arsalani Allah nuqatimu al arda falaka al madar wa liya al bahr wala wax ju ni mel boobu mu ne leetal mi ngi bàyyi koo ci Musaylima yonent yàlla bi jëm ci Muhammad yonent yàlla bi yàlla moo la yónni yàllaa ma yónni kon nag soo bëggee jàmm nañ xaaj suuf si ci digg bi nga jël bii côté woote ma jël bii côté woote. gis nga Musaylima keroog la ko yonent bi di dokkale al-Kazzab ci la yonent bi bindee min Muhammadin rasulillah ila Musaylima al-Kazzab Musaylima fenkat bi yonent bi moo ko tuddee sallallahu alayhi wa sallam saay saay la doon jéem a toppandoo yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne yonente bi jàpp na benn xale boo xam ni bopp bi dafa karaasoon du am kala yonente bi jël loxoom teg ko ci kaw bopp bi ñaanal ko rek affaire ba wér Musaylima daal di jël loxoom teg ko ci benn bopp gone rek xale ba jaaree ba di am ay góom ci bopp bi ba xëy dee Musaylima dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sàpli na ci ab teen teen ba neex lool mu daal di waa dëkk bi ñëw ni ko comme sunu teen dafa sab xorom da ngay ñëw nga tabli ñaanal ñu ci mu tabli ca teen ba fab teen ba amatu ndox fekk la leen alxuraan bi nag moom daanaka jërul sax di wax ndax alxuraan bi xam ni yow boo koy wax sax xam ne day jeex nag moom ndax dana topp lu alxuraan loolu xëy na ay yeneen daal dana ci ñëw waaye daal ala kulli xaal ay inna aataynaaka al kawsar ak asaar moom daal day jël saar bu ko neex rek mu jëm ko topp doo bi aw bakar ko dégloo dañuy kiyee ka mën a fen waay alxuraan ji lii dafa ngay nuru nag alxuraan lii de ci gémmiñu fenkat la mën a génnee waaye du génnee ci gémmiñu ku baax gis nga bu fekkee ma tudd al kazzab ku sonaloon jullit ñi la mbokk yi parce que dafa amoon doole trop dafa woote woo ak yeneen ba yeneen ni faatu li gën a compte nit ñi nag benn waaye bu bokkoon ci saxaaba yi bu ñuy wax rajal ibnu ankuwa rajal ibnu ankuwa yeneen bi dafa toog ak saxaaba yi ba mu yàgg muy leen yéen ñii toog am na ci koo xam ni aw dégg bëñam ca biir safara mu ngi toll ni montagne ko sax saxaaba yi jiit lool di xoolante kenn ku nekk di xool sa morom yéen a ngi fàttali ku dund Abu Hurayra dama ko fàttoon wax ku dund gis nga Abu Hurayra léeg-léeg boo masaana diw nit dikk ni ko diw faatu na day ko xam nga lu koy xam lu diw moomu ca mbooloo ma la bokk kon kooku mucc na kon faatu na ci lislaam rek kooku mucc na benn par benn ñuy faatu benn par benn ba keroog Abu Hurayra te jéggee ne Rajaat ibnu Ankuwa dem na ca Musaylima tubbi naan ko déggoon naa yonent bi di wax ni yow yonent yàlla la. subhaana rabbina al aala ma hada al kadib al waqih gis nga de ba ko Abu Hurayra déggee dafa sujoot sant yàlla mu ne ko mucc naa kon xamaa ne kii la yonent doon na mu sallallahu alayhi wa sallam ca loola la dee ca loola ca la dee laa wax Musaylima dafa àndoon ak ay seytaane yoo xam ni ñoo koy waxal ku mel ni Muxtaar ma doon woote woo yonent moom it kadalika ak ñi doon woote woo yonent même ku lay xam ni may wax sax am na ñu wax ni jamono may woote woo yonent sax am naa xista mu sayli moom daanaka boo doon wax moom ci caay caay ak lam te def dafa ci mbam te moom da ngay wax ba sa xol ba bëgg a dee noonu mu sayli may alkazab di li ñu yabal ci ku ñuy wax Ikrimata ibni Abi Jahl nga xam dina Ikrima doomu Abu Jahl général guerre bu mag la woon moom it mu dem soldat yi Musaylima duma ko duma yoo xam ne gañe ko gañe gu nekk mu tëdd ñu yebalaat benn waay bu ñuy wax Surahbil ibn Hasana Surahbil ibn Hasana moom it général la woon bi mu demee Musaylima gañe ko ci la gaa yi gis ni nag fi mu nekk nii nag keneen ku ñu yabal ku dul Xaalid ibn al-Walid mbir mi du sotti ci lañ daal di yabal Xaalid ibn al-Walid bi mu demee fekk Musaylima mi ngi jël benn général bu ñuy wax Majaa ibni Maraar al-Hanafi moom it ku mën a xeex la ndax xam ngeen ni gars yi bu ñu xamee ni fi mu ne li wala di naan wuri wa dem na kër nga xam ni fi ne ne moom caaxaan jeex na su boobaa nag dañuy seet koo xam ni général bu mag a mag a mag la mu yaakaar ngir ñu daal di koy teg sa kanam bi Xaalid ibni Walid dikkee radiyallahu anhu wa ardaa daal di songoog waajooju nga xamante ni moom mooy Majaa ibni Maraar al-Hanafi borom xam-xam yi dañuy wax ni Xaalid ci la ko gañe waxuma la gañe ko waaye duma mbooloo mi mu àndaloon duma yu mu toll ni lañ defoon Surahbil ibn Hasana ak Akrimata ibni Abi Jahlin te xoolal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ay julit borom xam-xam yi dañuy wax ne daanaka ak lim lañu doon boo xam ne ni ñu tuutee par rapport ak lim ba nekkoon ca Musaylimatul Kazzab Musaylimatul Kazzab dafa bari lool ndax borom bi subhanahu wa taala dafa dogaloon ni salaatata ashara alf maanaam treize mille personnes ñoo nekkoon ci jullit ñi te fekk na yéefar yi booba ëpp nañ téeméeri junni treize mille ak téeméeri junni loolu xoolal boobu différence ah téeméeri junni laa nga xamante ne daanaka mat nañ triple lañ leen waaye julli ñi ñoom comme ni ma ko waxee ci dars bi passé ñoom duñu xool sa mbooloo nu mu toll ñoom la ñuy xool mooy ndimbalu suñu borom dana yegsi te bu yegsi du compte ci li nga xamante ni mooy mbooloo waaye foofu mbokk yi rey nañ fa ci ay jullit lu bari lool lool lool lool lool donte nag jullit ñi rey nañ te yéeféer yi lu toll quatorze mille personnes quatorze mille la hawla wala quwwata illa billah mille personnes junni nit ñu la quatorze mille mooy fukki junni ak ñeent fukki junni nit ak ñeent jullit ñi rey nañ ko ca ña nga xamante ni ñoom ñooy nu mu tuddati gaaw yooyu ñu yëpp rek nga ne mooy ñu murtad moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne d'accord rey nañ ci jullit ñi lu ñu bari waaye boo comparé li ñu rey ci jullit ñi ak li ñu rey ci gaa yi mi ngi mel ni 6 pour cent xam nga 6 pour cent mooy la mooy boo reyee te ñee téeméer rey ci jullit ñi juróom-benn juróom-benn yi kon kay jullit ñoo leen gën 6 pour cent mooy gaa yi doon xeexal ñu mun ko doon dañuy rey te ñoom téeméeri nit doo ko rey ci jullit ñi juróom-benn nit kon bu ñu reyee ci ñeneen ñaar téeméeri nit rey nañ ci 12 personnes bu ñu reyee tey ñetti téeméeri nit rey nañ ci dix-huit bu ñu rayoon feer ñett téeméer kon fii fukk ak juróom ñett lañ fa rey kon loolu mooy julli ñu laa fekk ñoom ñoo leen gañe keroog nag mbokk yi li faatu jànkate alxuraan bari nañ juróomi téeméeri xuffaar ñu wattoon alxuraan dànk keroog rey nañ leen muhaajiroon yeeg lansaar yi daanaka lu ay téeméeri téeméeri téeméeri ci muhaajiroon ay téeméeri téeméeri ci waa lansaar taabi'uun yi daanaka lan ca rey tamit bari na lool ndax borom xam-xamee ñetti téeméeri nit ah ci ñi nga xam ne taabi'u ñi karab rey nañ leen ci xare boobu muy lim boo xam wax dëgg yàlla lu bari lool la waaye teewut Xaalid ibn Walid moom jot na ca lam doon wut jot na ca lam doon wut mooy faagaagal kii Musaylimatul Kazzaab te xam ngeen ni ki rey Musaylima mooy Wahshi Wahshi moo reyoon Hamza dafa amoon lu ko métti lool ki rey gi mu rey Hamza ba tax yonente bi ni ko sa kanam gi la duppeeku bu mu jàkkaarloo teg man mu amul tiis lool waaye keroog bi mu reyee Musaylimat al-Kazzaab nee na maa ngi yaakaar bakkaar ba ma daloon ci rey Hamza sunu borom pompalee ma ko rey Musaylima wa xoqa laha daalik ñu ngi koy amalee yaakaar wa xoqa lahu daalik ndax kat inna alxasanaati yuzhibna sayiaat dalika dikra lidzaakirin nit ki kat mën naa am ci ay njombee ci cooki doona loo xam ni am na ay mbaax baax yu mën a def mu daal di ko koy pompal am naa nag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon waa perte muy rome yi moo tax Xaalid ibn al-Walid ak lim doon am jafe-jafe Omar ibn al-Khattab gayrima marra Omar ibn al-Khattab digal na Abubakar xollil Xaalid sa jaasi ji bon ji bu bu bu Omar ibn al-Khattab ne sa jaasi ji bon ji gaaf rek lay def Abubakar ni ko man di ñëw maa wax sa jaasi ji bon ji jaasi joo xam ne yonent bi ne ne yàllaa ko bocc te ñoom ñaar dem na kenn ku ñu rek am na dëgg nag te xam nga Omar ibn Khattab li mu doon défendre mooy nit ñi dañu demoon ba buñ ñee tey la guerre nga ni ñii gisoo xaalis sax la bëgg a daw parce que nit ñi dafa demoon ba ngëm-ngëm dañoo gëm pour ñu ànd ak xaalis mooy dañuy gañe ñëwul mooy dañuy gañe Omar bëgg a wane dëgg la nag diggante Omar ak xaalis dinaa koy répété lu bari ñu bari dañuy yaakaar ay eenanteeg ñagasante da koy dox fekk mbir mi demeewut noonu de man ahlu siyar sax am na ñu nitam naan xaalis ak amat ay doom bàjjen la ñoom ay doom bàjjen wax na dëgg loolu am na waaye ñu ne ko biñ nekkee ba dañ doon xeex biñ doon xeex xaalis yenn ko ba ca kaw dóor ci suuf tànk bi damm loolu la ko Omar eenee d' accord même loolu sax mën naa am am na loolu silsila gi mu jaar mën naa mu wér waaye déedéet loolu amut laa sakka ni ku toll ni Omar ibn al-Khattab ah ak ñin ko xamee te justifié na boppam li tax muy def li mu doon def nee na damay bañ nit ñi dem ba gëm ni ngañaay ñi ngi ànd ak xaalis ma xolli ko ngir loolu la koy firndeel mooy keroog bi xaalis faatoo te dina ñëw subhanallah bi jigéen ñi jooy ñu di leen tere mu ni bàyyi leen leen ñu jooy loolu la xaay wax bàyyi leen leen ñu jooy fii yëpp fa lañ fa la ñëwoon di def ay yëpp dof mbaa ñuy wax wax bàyyi leen leen ñu jooy ndax ñi di jooy doom joo xam ni jigéen dootul segati ci lubbam doom ju mel noonu kon laa sakka ni keroog biñ ko waxee ni ko Xaalid faatu na tiis bu rëy rëy la àndal loolu feeñ si suuf neen keroog moom Amar ibn Xattaab kon diggante Amar Xaalid ibn Walid ak waa Perse diggante ay ak course ak réew yi nga xamante ni ñëwoon foofee yëpp Xaalid def na ci ay jaloore yoo xamante ni yu kéemtaane la bokk na ci mooy xare bu ñuy wax Taazima xare la woon bu métti boo xam ne ahlu siyar dañ koy nettali nga xam ne kete nekkoon général ci yéefar yi mooy Hurmuz Hurmuz Xaalid ibn Walid yebal ci moom benn lettre jox ko benn waay ni ko boo demee nga joxal ma ko Hurmuz mu dem tàllal ko lettre mu liir ko mu ni amma baad Xaalid ni ko fa aslim taslam aw ya'taqid li nafsika wa li qawmika dimmata wa aqrir bil jizya wa illa fala talumanna illa nafsak faqad jituka bi qawmin yuhibbuna al mawta kama tuhibbuna al hayaa Xaalid mu ni ko sama lettre bi lu gàtt la dugg di baat tuubal dugg ci lislaam nga muccal sa bopp wa illaa boo ko defut préparal ci xam ni toroxtaangeeg toske rek joxe galak mi ngi addu ci sa kaw lool te it nag bu dalee ci sa kaw bul yedd ku dul sa bopp te nga xam ni ñi ngeen bëggee dund noonu laa indee soldaar yoo xam ne noonu lañ yàkkamtee jee ndax dañoo bëgg ku leen yóbbu àjjana allahu akbar kaa leen yóbbu ñu àjjana loolu la gaa yi doon wax kaa leen gaa yóbbu ñu àjjana maanaam ñii dañ doon ñëw kenn ku nekk di xalaat sama jabar jaag sama kër jaag sama tool daa kat kon da ngaa gaaw yàkkam ci xare jóge ci delluwaat ñoom kenn ku ci nekk booy nit ñëw da ngay sàkk ku la ñaanal bu dellu si bul dellu si ndax ñoom dañuy yàq seen dugg àjjana loolu nag mbokk yi yëg-yëg bu xawee muy nit ci jëm ci jaamu yàlla boo xam bakkan da caa mën a def ngay ñaan yàlla yaay yi dañ daan ñaanal seen doom yàlla boo dellu si borom kër yi seen soxna yi leen wax loolu boo demee waaye subhanallah loolu amatu fen loolu day amatu fen fen fen fen yow boo ko doon jéem sax di def ay mbir yoo xam ne xaw naa nekk risque ci def liggéeyal l'islam rek ña la war na encouragé muy sa mbokk jullit ñoo lay commencé découragé seen lii léeg-léeg seen lëlité moo tax léegi problème bi ñu am fu ngëm yàlla mbokk yi mooy xam nga jullit am na yooyu du ko man waaye ay mbokk ma daan tax mu man ko ndax da koy jug di ko jéemantu mu gis benn waay boo xam ni moo ko gën a rakkal ñu foog ma nga teg kanam di ko xaar wax dëgg yàlla ku gis ku la jiitu kay daw topp rek yomb waaye da ngay wax sa waay gars yi commencé arrière bi naa ah hi boo fi dee xam nga loolu wóorul da ngay sa doom da ngay dégg naa sa do sa doom yi ko leen di bàyyi defe naa sunu mbokk mbokk mi xam na ci dara ci li may wax sunu mbokk mooy ñu doon dimbale ji rek dégg nañ ko loola nga dégg ku naan ay ndaw ngeen demagu leen fenn ah bu ngeen bàyyee seen jabar yi seen doom yi léegi kan mu leen ko yoral après xoolal affaire yu dee yi nga xam ne yow boo ko déggee rek automatiquement dafay résoudre ngëm yàlla yow xoolal yooyu yow xanaa kay léegi li ngay dem da nga gëmatul ni lii yàlla laa cay wuti wala déet boo ko gëmatul li mu dee dem nga ko waaye boo ko xëjee ba gëm ba noppi kaloo la Omar ibn Abdul Aziz waxoon rek bàyyil ci sa njaboot gi dara mu ni sama njaboot bi baaxee fallahu yatawalla saalihin yàlla mu nee na ku baax ci kaw suuf man maa lay garder après mu ni bu dee ñu bon lañ lu sama yoon ci ñu bon ma ba leen toppoon lu ñu ñëw sama ginnaaw bu ànd ak buñ baaxee yàlla mu ni ma leen di wàcc saxaaba yi noonu lañ meloon moo tax dañu am courage pour jug dem ci xare maaraka si kaasima xaalis mu ni ko andil naa la ay nit yoo xam ne moom xoruma ni ngeen bëggee dund ñoom noonu lañ bëggee dee te loolu lu am la waaye mbokk yi Xaalid ibn al Walid xam ngeen ni bu doon ci suñu langage yi xam ngeen ni doon ci langage boobu sax dama koy wax rek ngir ñu mën a xam li ma bëgg a wax maanaam nit ku toll kenn fu ñu wax guerrier guerrier ci ci xare to te guerrier du base bu garaaw guerrier yi ñun Sénégal aw laak la dee guerrier boo ko waxee ñu defee am pàqman ngay wax fekk guerrier guerrier mooy jàmbaar rek maanaam guerrier dëgg la woon ci wàllu xare nag ndax stratégie yi ñu ci def ba gagné Xaalid ibn Walid dafa yëg ni gars yi ñi nekk toog ma ñi ngi préparé pour xeex ak moom xoolal maanaam technique yi yëpp xam nga yéen su ma wax ne alxarbu xudaa xeex moom naxante la rek ba gagné ah Hurmuz dafa jël ay soldaaram dem ci barab bi ñuy wax Kaasuma nga xam ni fa lañ war a xeexee mu campé fa gas ko ay ngaar yi xam ngeen ngaar yi xanaa xam ngeen comme kali kàmb yooyu ngaar yi moom la ñuy wax ngaar yi kàmb bu rëy boo xam ni boo cëppee woon sa biir doo mën a tëbal génn sa bopp bu dee aw fas la mën ta daw ba ne la yi tëb la ñu tuddee ngaar yi moom la defoon sa xandax la moo tax ñu tuddee ragatu xandax bi ñu gisee ay ngaar yi ba noppi préparé samp seen kii nekk ay soldaar yoo xam ne ay téeméeri téeméeri junni lañ léegi xool technique bi Xaalid def Xaalid dafa ñëw ba juble au lieu que mu yegg si mu séddale soldat ci trois pàcc soldat bu ñu nekkoon ñetti téeméeri nit ci misaal mu def leen téeméer fii téeméer fee téeméer fële mu ne yéen dem leen côté ndeyjoor yéen dem leen côté càmmoñ yéen dem leen ca ginnaaw bu kenn tomb na maanaam technique bu naxe la bu ko defee ñoom ñi ngi toog fi ñu toog waaye duñ xam fan lañ leen war a songee ban côté bu ñu gisee mbooloo mi nekk côté ndeyjoor ñi ngi naan kon fii la gaa yi nar a campé te ñu jublu ci ñoom di leen xool jamono jooju ñi ngi déggaat nekk te am na ñu nekk fële ñu ne baa du ñoo ne rapport lañ buy waaj a ñëw léegi dañuy accolé est ce que comprendre nga bu ñu accolé léegi seen problème mooy ñii ñoo ñuy song wala ñee ñoo ñuy song ak kuy nekk rapport xaalis bi bu kenn song lu dul maa joxe ndigal bàyyi leen noonu ñu bàyyi noonu ab jiir gaa yi daal di toog toogaay bu yàgg yàgg yàgg Xaalid song leen Xaalid daal di joxe benn ndigal ni ñëw leen daje leen benn place nañ dem barab bu ñuy wax xafiira maanaam nañ dem barab daal déclaré ni foofu lañ war a xeexee bi du kaabu la ñetti téeméer ñetti téeméer yi ab lim laa joxe rek waaye ëpp na loolu ñu daje jëm xapiira ñii gas nañ sonn nañ gas nañ seeni mbaar samp nañ énergie bi ñu amoon yëpp yekk nañ ko boobu xaalis ni xeexewu mu boobu te laa xeexee te comme ñoom mer nañ faw ñu jéem ko topp ñu seenti waat lañ amoon yëpp di ko topp bi ñu demee di ko topp ba yegsi xaalis yi yee xam talu ba gaa yi jiitu ko bi ko gaa yi jiitu mu rocceeku waat ndànk ñëwaat kaasama li mu yegsee nag ni fii nag moom fa laay xeexee du ma fi jógee nag moom daal di commencé nag ba nga xam foofa léegi gaa yi bi ñu yegsee xapiira ba sampat seeni mbaara ci seeni xayma li war a préparé waat ñu jox leen benn déclaration ni xaalis ma nga kaasu ma nee na fa la leen di xaar hormuz nag foofu nag dile waaj a soxe nag xam nga dafa metti nag dikk ba joxee li nga am lépp ñu ne la foofu nan ko léegi foofu xam ngeen lu ci xaalis jublu woon kan moo xam lu mu jublu ci loolu ah waaw énervé ko ci la waaye am na leneen lu gën a rëy loolu coono la leen bëggal coono dafa bëgg balaa ñuy songo ma sonal la xam nga mooy waa ji nga war a songool songoog moom ngay daw daw di léewu taw di wërlanteeg moom gis nga léeg-léeg léeg-léeg xeexkat yi dañ koy def boo xamee ni waa ji ku am poids la ah dañ koy sonal boo ko sonalee ba muy appareil booy dóor muy daal léegi xaalis bëgg na mu mer te en général ku mer léeg-léeg doo defee bi ku mer da ngay da ngay defar xatar xatar te dafa xatar dafa xel a ko gën ñaareel bi mooy xaalis xam na ne gas nan fii gas nan fee samp fii samp fële kon dinañ sonn bu ma leen sonnalee ba noppi doog a jàkkaarloo ñoom li gars yi dellu si waatee Casamance nag fekk xaalis jiitu na leen fa dem ca pegg dex ga campé boobu nag ñu leen léegi nag tey la ñuy xam nag ku man yaay naan kuñ man doo naan ñu soldat si yegsee gars yi joxante li nga xamante ni moom mooy daje kooku ca barab boobu di Casamance bi ñu yegsee moom Hormuz ak gars yi nga xamante ni ñoom la àndal Xaalid ibn Walid jàkkaarloog ñoom ci barab boobu foofa leen faagaagalee benn par benn ba seen général da ko rey moom Hormuz Xaalid moo ko rey ci loxol boppam noonu nag bi mu amee nag gars yi commencé am jafe-jafe seen diggante Xaalid am na ci ñoo xamante ni ci mu amee ko nee nañ sa Xaalid gars yi nanguwul ñoo xeex ndax bi ñu yegsee gis mbooloom Xaalid yi rapport yi ñëw ñu xam ni ñii ñoo leen man xam nga gars yi bu ñu la mënee rek nii la ñuy def sànni sa jaabi ni nii mooy maa ngi wax a jàmm xaalis daa leen di jàpp ñoom ñëpp bi mu leen jàppee subhanallah xam nga ni loolu la def reen bi reen bi reen bi comme reen bi tabax ci moom loolu li mu ko def dafa bari trop sax trop du barab bii kese ay barab yu bare bare bare bare reen bi benn par benn di sànni di reen bi di sànni di reen bi di sànni ba bayal dajale màng ma yónnee Abubakar yi sama diina kon yii ay dajale yoo xam ne benn boo ci jël rek dafa doyoon sëkk pour ñu jàll te leneen xam njàmbaar te ki nga xamante ni moom mooy Xaalid ibn Walid am na beneen xare bu ñuy wax maarakatul Mazdar ah maarakatul Mazdar nga xamante ni ñetti général ci waa maanaam waa Pers dañoo dem ba gis ni Xaalid ci boppam kenn mënu koo dégg léegi nag génne ñetti général yoo xam ne ñoo war a jàmmarloo Xaalid xam nga koo xam ne benn général rek doy na ñu xam ni ci kenn mënta jàkkaar ñu jàpp ñett général ñoom ñett ñëpp ñu war a jàkkaarloo ki nga xam mooy Xaalid ibn Walid seen buur bi di siiraway bi moom moo jiital ay soldaar yoo xamante ni benn waay bu ñu Xaalid ibn Xorbaan moom moo ko jiiti moom moo jiite woon soldaar bi mooy général bu mag bi am na benn waaye bu ñu anu sa jaan moom it mooy ñaareelu général bi topp ci gannaawam ak benn waaye bu ñu xubaab ñoom ñett ñi ñëpp kenn ku ci nekk war a jàkkaarloo seen Xaalid ibn Walid bi ñu yeggee fekk dajale nañ ay soldats ñoom it xam nga ñoom bu ñu doon xare léeg-léeg waa dëkk bi kese dañu xeex ndax comme jullit ñi moo gën a jullit bee gën a bari ay noon même waa dëkk ba bu seen yoon nekku ci xeex bi dañ ne leen hey kaay leen dimbali ndax xam ngeen ni bu xaalis pare ci ñun ci yéen la jëm bu ngeen a dimbaliwut nag bu jëmtee ci yéen dumu leen dimbali xoolal jullit ñi ñu doon sonne maanaam ñe kenn ki nga war a xeexal rek nga xam ne doy na xeex faw am ñeneen ñu ñëw bokk Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu borom xam-xam yi dañuy wax ni ñi mu waroon a jàkkaarloo mën nañ tamaaniina am quatre vingt mille personnes te Xaalid xam nga ñaata àndoon dix huit mille kon foofu xanaa da nga naan triple nañ leen ba léegi ñett xanaa ñeent nañ leen koy xanaa la ñuy wax fukki junni ak juróom-ñett ci ay soldaar la Xaalid yore ñee yore juróom-ñett fukki junni ci ay soldaar kon ëpp nañ leen ñeenti yoon daal waaye bi ñu yeggee gars yi dañ dëgg li ñu tuddee albiraar mooy ku ma ñeme bu doon loolu dañ ñun buñ ko fekkee woon ku ma ñeme xare bi bu taxawee benn jullit mooy jóge fële fëgg dënn na ku ma ñeme na ñëw ku ma ñeme na ñëw foofu nag xam ngeen loolu tamit dafa dafa kéemaane nag xoolal juróom ñetti sa juróom ñett fukki junni ci ay nit ñu ñëw taxaw ci seen kanam naan ku ma ñeme yow nit ne dafa kaa génn ci biir mboq ma waaye foofu nit ki da yor ci ngëm loo xam ne ku mën a génn baax na danaa yéen a ngi fàttali ko dund Ali ibn Abi Talib keroog ba Amr ibn Wudd génne ni ku ma ñeme maanaam Amr ibn Wudd ak Ali daal su ma la ko doon misaal xam nga lu may wax kuy peser deux cent kilos war a jàkkaarloog soixante kilos muy benn magum ñeent fukki at ak juróom war a jàkkaarloog gone fanweeri at gone gone ñaar fukki at noonu laa la ko mën a misaale pour nga comprendre am lu mu tudd nit bëri ba jàkkaarloog àll yi ñoom na dañ doon def léeg-léeg ñu ci ëpp bu dee ñu xamante la yaay kan ak kuy sa baay soo nee may diw sama baay mooy diw waa ji mu xalaat ni man ak sama ay xarit lañu naa ah rus naa dem allah xëy naan sa baay maa la rey mu ne ko yaay kan mu ne ko man maay Amr ibn Wudd mu ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay Ali ibn Abi Talib sama yaay ma tuddee woon Xaydara xam ngeen luy Xaydara gaynde mu ne man maay Ali ibn Abi Talib sama yaay ma tuddee woon gaynde ndax xam ni gaynde la kuy sa bàyyi mu ne ko Abu Talib mooy sama bàyyi mu ne ko yow sa bàyyi sama xarit la yow rus naa laa rey dem Allah xere bu may faatu naan sa bàyyi maa la rey Ali ñu ko génn naa ba nag dama delluwaat gis nga de génn naa loolu mu ne ko gone gi dama dama lay rey rek mu ne ko man maa la war a rey xam nga xool dëgg yàlla fonkal mu jàpp ni moo la man xam nga yenn joxe ni boo ko joxe ne day mer gis nga bi mu bi mu meree pour war la ne dafa mer fas bi mu yoroon daf ko ngalaat ba fas yi ngaan mën a tudd man xam nga fas yi boo koy ngalaat da ngay ngalaat gémmiñ gi daf ko ci tànk yi pour mu taxaw benn falaat fekk Ali da ko menacé Ali da ne ko sa fas yi laa bëgg mu topp fii ndax ay sàppet ngeen ku leen jekku ne ngeen war seen fas daw léegi nag loolu bi mu ko waxee xol bi jub mu ngalaat fas yi ba fas yi ngaan waaye moo ko Ali moo ko Ali fa mbir ma mujj mooy Ali da ko xar ñaar ci kaw ba ci suuf loolu da lay wan ni maanaam gis nga mbir mi nekkul ci doole wala diwa ma mag wala diwa nangam déedéet mbir mi ndimbalu suñu borom la subhanahu wa taala lu muy wàcceel muy an nasr wa ta'yid noonu ñett général yi wàcc war a jàkkaarloog ñenn ci jullit ñi ñaari général yi daal di woote ci yéefar yi ne dañoo bëgg ku jàkkaarloo ñun Xaalid ibn Walid ni bëri benn waay jiitu ko bu ñuy wax Maaqil ibni Ahsa an-Nubashi di Xaalid jugee nar a dem rek Maaqil njëkkante moom ni ko Xaalid bul dem baal maay def xam ngeen kooku tamit jàmbaar la Maaqil daal di jóg li mu jógee rek mu dajeeg waa jooju muy Qaarin moom xam naa fa la ko xarnoo fa la ko yamale bokk moom it keneen daal di jóg ku ñu Aasim ibn Amr dajeeg waa ji ñu Anu Sajaan daal di koy leen di moom it kadalik konkal mi daal di jóg nag muy Ali ibn Xaatim Ali ibn Xaatim radiyallahu anhu moom moo jekkale ka ca des bi mu ne bi mu ko jekkalee nag Xaalid ibn Walid doo ko jub nag gars yi xamal ne rek bu fekkee kii daa jub kii kañ ko kii jub kii kañ daa leen jékki-jékki rek tempo xam nga li ñu tuddee tempo mooy songandoo ñoom ñëpp nag léegi bu ko defee maanaam mubaarasa gi nekkul loolu la ñuy defoon comme kii ñëw ñu gañe kii di ñëw ñii benn benn déedéet dañ koy def ba mu yàgg rek nga jékki rek gars yi songandoo bu ko defee ñu daal di continuer la nga xamante ni moom mooy seen ab xare Xaalid sax daanaka xaw tudd comme jëtu saa bopp am na ci ñenn ñoo xamante ni borom xam-xam yi dafa keroog dañoo daw sax tànn bi am na ñoo xam bu ñëwee ba jaaxal dañu dem sóob seen bopp ci géej gi xaru moo tax Xaalid ibn Walid mu ne bu dul woon ak ñi dem njëkk a rey seen bopp tey du ma bàyyi kenn te moom sax sax daanaka moom mubaaraka wul sax daanaka jugul bokk ci ak yeneen yoo xamante ni yu doon am la borom xam-xam yi di wax ni am na ci benn xare bu ñuy wax ulay boobu moom moo ci gënoon a kéemaan ndax Xaalid dafa giñoon ci yàlla ne tey laay tuur deret ba defaru dex xam nga loolu moom kenn du ko gis dafa gin dafa gin ci yàlla mu ni say laay tuur deret ba defar ak dex xam ngeen dex dex boo xam ne dexum deret lay doon xam nga tutu lii lii xanaa ci kaw mbirum jàmm kay maanaam xaalis ci boppam façon bi ko suñu borom bindoo bindee la xool xool xool xool bu jaaxal ndax am na yenn xeeti dëkk la sax même ci ngay rey bu dee yéefar la waaye am na yenn jëfin yoo xam ne maanaam nit simple ku nitee boo ko yàggee def bu yàggee am na lu muy wàññi ci yow te wàññiwu dara xaalis yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku nit li woon naa leen fa digganteem ak Samir ibn Nuwayra ah ak Malik ibn Nuwayra nga xamante ni sa waay da koo rey ba noppi jël bopp bi teg ko ci wasu bi wasu cin yi benn xeer ñaari xeer jël bopp bi def ko muy ñett teg ci cin ni ci daay togg añ tey bopp jàmm ak ñetti xeer ak ñaari xeer mu togg ci añ mu ne dama ci togg añ ba suur pour mën a daal ci seen kaw xam nga loolu yooyu maanaam nit ku xaw a ragal boo ko déggee rek yow daanaka loolu rek gañ gañ gañ nañu ci Xaalid ibn Walid jamono bi nga xamante ni chrétiens yi nekkoon ci arab yi xam nga arab yi doon ñëpp ay jullit lañ am na ci ñoo xam ne ay ñu dul julli lañ waaye ay arab lañ ci Taglib ak Bakr ibn Wa'il ak yeneen ñoo xamante ni ñoom duñu ay jullit dañoo daje woon ak Siirawayhi ñi ko yow kat dañoo bëgg comme yow buur nga kilifa nga généralu guerre nga dañoo bëgg nga dimbali ñu dajale loo man ci yéefar yi koo xamee koo mën a language rek andi ko pour ñu dajale xaalis ndax xaalis kat ku mu song su baree ca katadat lay jëm noonu ñu war a daje ci place bu ñuy wax ulay borom xam-xam yi dañuy wax ni bi nga xamante ni gars yi dajaloon nañ ñu nekk am mbooloo mu baree baree bari ndax Xaalid ibn Walid nee nañ keroog dix huit mille personnes ya ko toppoon daanaka lim bu ñu toll wala bu ko jege rek ñoom ñoo ñëwaat waaye fekk nañ gars yi ñoom nekk nañ ñi awa xam fii na al cent cinquante mille personnes cent cinquante mille personnes boo ko divisé woon ci dix huit mille personnes xam nga loolu dafa wax triple dafa wax ñett ñett ñett daanaka da ngay wax ni di fukk nañ jullit yi noonu gars yi daal di dajee bi ñu dajee ñu daal di jiital benn général bu ñuy wax Jaabaal moo nekkoon général yu yéesal yi gars yi dem lal seen ay moquette genre bâche yooyu togg ci añ togg ay añ mën nga di xalaat nga di dëkk ba dëkk lan koy bool ngir war a toog añ ci dikk naa ñu tàng bi gars yi jaabaan seenee Xaalid ibnul Walid di ñëw ci la leen jubleen bàyyi leen seen añ bàyyi leen seen añ bi kii ma gis muy ñëw de gis nga bu ngeen tegul seen añ bii dañ leen duba lekk seen añ bi te wallahi nam ko waxee na la amee dañ leen duba lekk lekk seen añ bi gaa yi lan gis nga moo koy loolu gaa yi dañ doon reetaan di ko saboote xam nga mbooloo mu mat cent cinquante mille personnes su séenee mbooloo mu nekk dix huit mille personnes dafa ngeen dinañ ko faale duñ ko faale général bi di wër ci biir sàppe yi di wax ak ñoom jóge leen fii kii bu yeggee da leen du ma lekk seen añ bi de gaa yi dañu ne xanaa nete añ ma rekk rek doo ko danga dajal xaalis gis nga te nam ko doon waxee noonu la amee xam ngeen nag général yi xamante nañ ci seen biir kooku général ak yàlla xaalis général la ñoom xamante nañ ci seen biir xaalis yegg bi xaalis yegg te ak xam nga gaa yi dañ daan yegg ci sonn war a toog noppalu dal préparé bi ñu yegsee au lieu que ñu noppalu Xaalid mu ngi yële ci seen añ bi laa bëgg a lekk nga loolu loolu kii maanaam suñu borom la yow yaa ngi xeex ak sa adversaire yow moom da laa war a faat léegi léegi mu ne moom ñoom seen añ boobu dafa dafa ko bëgg a añee moom Xaalid ibn Walid daal di leen song ci saasa fa leen songee moom Xaalid ibn Walid bi mu leen songee am na benn waay bu ñuy wax Abdul ibn Abdul Aswad bokk na ci seen njiit yi xaalis bi mu dajeeg moom avant mu koy rey da koo yedd da koo yedd ni ko yow yow yaa bon dëgg-dëgg yow lu la dugal ci lii yow xamoon nga ni bu ñu dajee maa yow fii lay mujjee dama lay rey benn jaag la ko door rek mu daal di dee am na beneen waaye bu ci def boo boo xam ni ñaar lañ woon ñu bokk ndey ak baay ñoom ñaari ka daal xaalis gis nga général bi xam nga nu ko xaalis def général bi xam nga nu ko xaalis def ay ponkal la woo ñu ñàggal ko comme seet bi xarum tabaski mu rendi ko rendi maanaam nekkul sax di cawante ay jaaseeg dóor ndax léeg-léeg dafa am fop bu fa tolloo la tax muy def la muy def nag loola dafa am jubluwaay xam nga lu tax mooy général bi nga xam ni ñëpp ci moom lañ yaakaar bu ndam dem ci la ko ci lay jaar xam nga kooka buñ ko defee neen li jàpp naa ni ñu seen saxut di wax xaalis woolu ay ponkal ñu ñàddal ko loxo yi téye ko tànk yi mu jël paaka rendi ko dagg ba fi sànni fële xam nga lu bu loolu xësee am rek yëpp boo seetloo ci guerre yi général bu xësee paaka rek yëf yi day commencé yàqu li ko waral mooy nit ñi dootuñ amati fit gis ngeen xaadisiya gis ngeen xaadisiya rustum général la boo xam ni de kéemtaanu suñu borom la woon te effectivement balaa ñu koo rey julli ñi sax balaa ñu ko rey sonn waaye biñ ko rey rek ci la pëccëxoo bi commencé am parce que buñ ko xësee rey moo tax ki ko rey ndeysaan ci digg xare bi la taxaw allahu akbar xataltu rustum te loolu xam nga daal menace la boo xam ni soo ko defee rek maanaam doole yëpp day wàññee général bi ñëpp daa waa ji dug taxaw mu ne géej ko maa ngi màggal suñu borom rustum rey naa donc nag ñu ngi ànd ak coono boo xam ne balaa ma ko war a yoo xam naa moom loolu lay wax waaye bi mu tili coono nga dog koy rek yooyu kon ay mbir la yoo xamante ne ay stratégie guerre la woon gis ngeen ca Uhud gars yi defoon nañ ko jékki-jékki gis ñu affaire tàng na rek ñu ni Muhammad faatu na bi loolu amee saxaaba yu bari découragé te rasul borom doon yéen wa ma Muhammad illa rasul ah qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum yéen li ngeen def ni mooy lan Muhammad du am yeneen song ay yeneen ñoo ko jiitu woon bu fekkee dañ koo rey wala mu faat day tax ngeen génn seen diine ah mu nekk yedd boo xam ne bu dal la woon bu ñu tegoon ci kaw julli ñi keroog ca Uhud noonu li général bi dee nag xaalis bu ñu leen léegi ni ngeen def dajale leen ma gars yi damay rendi day rendi rendi comme ni ngay gis nga xam nga rendi sax fii sa xarum tabaski rek ngay rendi waaye boo demoon Madina Makka te aj ga ñay rendi ci foofu nga xam ni fa la rendi am na moom nga xam ne yow da ngay rendi ba sonn ba sonn bàyyi xaalis nee na xanaa kuy féttéerlu ku féttéerlu moom yëpp leen moom xaalis di rendi deret ji car muy daf daa ginal yéen bàq ngi ni lu mu giñoo dafa giñoo ni tey damay defar ci xaj daay moom daal kéemtaan suñu borom la xaalis di rendi deret ji car muy rendi deret ji car muy rendi deret ji car xaaxaa ibn amr moo ko fekk di ko gis nga xaalis da ngay sonal sa bopp rek mënoo fexe fexe fexe ma deret ji nekkum jax te rek deret jaa ngi commencé état waaye mënu ko mënta nekkum jax léegi comme giñoon nga xam nga nan lay def te xaalis dafa ñëw ba ci pegg dex gi baare ndoxum dex gi ci pegg dex gi fa la doon rendee pour bëgg a wan nit ñi dex gaa yi sama deret sama dexu deret gaa yi léegi mu baare ndoxum dex gi xaaxaa ibn amr ku muus la woon moo ñëw mu ne ko gis nga sa ngiñ ñi mën ngaa bañ a kapaar te li nga bëgg dana am waaye nii boo koy def du sotti mu ne ko kon nan laay def mu ne ko ndox mi nga baare ngay bàyyi ngay rendi muy car ci ndox mi ngay rendi muy car ci ndox mi bu yàggee ndox mi soppali ko deret wax na ko dëgg de xaalis ni fat dindi leen ma fatt fatt bi ñu dindi ko muy rendi muy car ci ndox mi ndax gi daa mujj xonk cur moo tax moom lañ doon tuddee nahru dal dex boobu sax la xaafis ibn kathir mi ngi wax ni ba ci jamono yu yàgg yu mujj yi sax dem nañ ba xonqaayu dex gi daanaka xaw tuuti kon ay généra génération yu bare bare bare ci ginnaaw fekk ko fi ndax xam ngeen ni ak dex bu demee ba daa jox xonq caaxaan melal tuugoon na melal aywa dafa naa ñu ngi si aaxiru noqta kon Xaalid ibn Walid moo nekk noonu ci abaqariya bi ci njàmbaarte gi lii moo taxoon Abubakar Siddiq daan ko wax wax am ko doon wax gis nga bañ noppee nag fekk xaalis dafa diggale woon benn waaye ni ko ñoo ngi xaalis talaguñ añ waaye bool yi dajaleel ma ko tegal ma ko fële bañ paree xaalis rey leen ba noppi dem jël seen lekk la la moo xoon def na ko dinaa añ seen añ bi añ na ko dinaa defar dex ak jaxet defar na ko kon yii ay kéemaan la yoo xam ne borom bi soo daf ko defal waaye boo xoolee ba ci biir da ngay xam ni la Abubakar Siddiq doon wax rek Abubakar Siddiq ba mu déggee ni jullit ñi gañe nañ ca ulay dafa yéeg ci kaw minbar bi kontaan lool mu ne yaa ma'shara Quraysh عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراجيله أعجزت النساء أن ينشأن مثل خالد أو مثل خالد mu ni sunu gaynde gi dem na fekk gaynde jàmbur ga tabaskee ko ca biir dëkkam moo tax jigéen ñi nag lokk nañ dootuñ mën a julati góor doom ju mel ni Xaalid allahu akbar jigéen ñi dootuñ mën a tegati seen lupp yi doom ju mel ni Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu gis nga borom bi subhanahu wa taala daf ko defaloon tawfiq ba mbir mi nag daa fab yegg foo xam ni léegi nag Xaalid la nit ñi bañ a dégg moom Xaalid Khalid ibn al-Walid la nit ñi bañ a dégg gis nga am na benn xare boo xam ni borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam biñ koy xare Khalid dafa def benn stratégie boo xam ni dafa àtte soldat ci dëkk bi fekk gaa yi dina am ay xilaa mooy ay tata ay tata te xam ngeen tata bu ci nit dafa see duggoom daanaka ñegewul Khalid ibn al-Walid bi mu nee tëll ci dëkk bi rek waa dëkk bi yëpp dañoo tiit daw dugg ci seen biir xoolal mbooloo mu nekk ci sa biir dëkk ñu fekk ci la ci ñëw nga xam ne lu bari la bàyyi dëkkam ñu dugg ci biir saga yi général dafa jiitu xaalis ñi ko gis ne ñii bi ñuy gën man lañ doon song si yow lañ seen moo tax ñuy làq léegi xam nga lu xaalis def xaalis dañu ko bàyyi ba suba ñu bàyyi ba ci suba sa xaalis bàyyi ba ci ci njolloor mu war aw fasam ni eh sama gars yi kaay la ñu bu waay ñii ay sàppat lañ fekk déedéet xam nga lan la woon ay naxe ndax alxar bu xudaa kaay la ñu ñibbi wax xanaa dafa wax boo koy siiwal rek da ngaa bëgg mu siiw daa am loo ci jublu xam ngeen yéen a ngi fàttali Omar ibn Xattaab ba mu tuubee kan lay waral ah Jamil ibni Maana yéen ba ngeen a mokkal de yéen daa mel ni yéen a dàq ah yéen dàq mokkal saa ngi de Jamil ibni Maana Omar dafa tuub mu ni kenn ngeen xam mu dàq fenn ci dëkk bi ñu ne ko benn waaye bu ñuy wax Jamil ibni Maamar day moom mosuñoo xam ko dàq soxali wax Omar daal di ñëw ba fekk Jamil ibni Maamar toog mu ne ah xëy na Omar xëy na tuub Jamil tam loolu la bëggoon maanaam ñu ngi mel ni suñu jamono ji rek loo bëgg mu gaaw jot ne ko bis xaalis yi Omar loolu la ko ne waxu ko siiwal ko waxu ko dara Omar da day tuub na moom loolu kenn mënu ci dara Jamil ibn Mahamad sam xel yi si mel ak saala balaa bëccëg a jot dëkk bi yëpp yëg nañu Omar tuub fu mu dem marché yeeg cantine yeeg biir kër yaag waaj Xaalis stratégie mel noonu la def gis nga dama yegsee mu ni mu ni mu ni mu ni kaay lañ ñi waaye ñii ay tàkkat lañ waaye fekk waxtaan nag général bi ni ko guddi damay jël si waat damay daal xaaj guddi ba ñëwaat xaalis daal di génn ànd ak mbooloom di wëy ko poussière bi dem comme information bi yegg na ci waa dëkk bi ñu ni baax na ba suba ci guddi gi xaalis bay ba xaaji guddi mu ñëw bi mu yegsee dugg ci moom gars yi ci biir garab yeeg moom làqatu daal nekk boo xam kenn du leen seen bi ñu xëyee suba gars yi génn ci seen dëkk bi ñoom ñëpp pour song si général bi Xaalid yabaloon Xaalid def ñaari yëf bi ci njëkk mooy ni fa cëx génn xanaa foofu moom gars yi mën nañ faa sax ak xémb di seen seen tubay ñaareel bi mooy mu yabal benn waaye ni ko demal nga tëjal ma sata yi maanaam ça veut dire que bu ñu dawaatoon ñoom duñu mën a dugg ci biir sata yi noonu la leen Xaalid fekkee te xare yii may nit nag li ci gën a kéemaane mooy benn bu ci nekk li ëpp ci xare yi da doon rendi moom moom kay dañuy jàkkaarloo di jawante jaaga wala ay fet waaye ci gën a mën a merloo xaalis mooy ci doon féetéerlu subaaroon da leen tëral comme ni ñuy tëralee ay nit te kat am na di xare boo xam ne maanaam ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo yombal xaalis ni ñu leen reyee xam nga gars yi léeg-léeg dañoo xam ne yéefar sax day gaaw a dal dañuy jël sama loxo yeew ko ci loxo kii jël kii yeew ko ci loxo kii wala muy muy xare rek amul daw li xaalis ñëwee moom fee tàmbali topp seen gi rek xam nga comme dañu ne leen moom ñee moom topp seen bi di reese rek xam nga seen yoon yow day tak kii tak kii tak moo yëpp mënuñoo daw a daw léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne sax dañuy jéem a xaru am na ci ko dina ñëw ci dàtt biir ñu doon jéem a xaru xaalis ni ko dina mu ni ko potam ba xaalis jël ko ni ko def lekk yooyu ay mbir la yoo xam ne boo ko déggee nag li nga ci njëkk jàng mooy gis nga nekk nit ki kenn ku laay nu mu wàcciloo ci borom subhanahu wa taala te gëm ko waaye nag fekk mu dëgg ko sama problème bi fekk mu dëgg kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ni xaalis jaati la ji suñu borom bocc ci kaw yéefar yi loolu rek doy na sëkk ci yii buñ ko waxee kon nit ki xam ni kon lii xaalis nekkul lu kéntaane ci moom comme ni ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam kon lu ngi taxaw kon bind bi ñëw xam naa moom la ñuy continuer waat incha allah ndax mu jeex di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira di wax la waaja waxoon rek ya rabbi ba'ath lana min mithlihim nafaran yusayyiduna la majdan abanaahu wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain